yéeg si nañ ci fas yéene ci dalal Seydina Omar Ba kilifa gi ñu lay nuyu. ma lay fay nag suba si. alhamdulilah tey ñibbi nga gànnaar. rafetati na gànnaar jàppale sama mbokk gànnaar. am na ci solo <laughs> rafetati na lool waaye. jërëjëf Abdoulaye. jërëjëf euh, lu. jërëjëf bi de macha allah. waaye miin na Ndakaaru. Ah, commencé na miin Ndakaaru miin na de bàyyi ko noonu rek. Ah, waaw waaw jaajëf <laughs> Seydina Omar Walf Quotidien lu ñu xëyee tey ci xëtam bu njëkk. yéen a kaay gi di Walf Quotidien dafa xëyee dellu si ci lu jëm ci wàllu prix yi maanaam njëkk yi nañ koy contrôler euh, kii di Abdou Karim Fofana da cee wane ak télém noonu la ko yéen a kaay gi di Walf xëy fësal ndax dañu gis ne ne fii ci Dakar rek lu ci solo juróom benn fukki contrôle mu fi am maanaam boo ko doon xay xayma benn agent mooy fas yéene contré lu ci tolloog juróomi téeméeru commerce na la ko yéen kaay gi xëy fësale candidature Bassirou jamono ji dafa njuuy euh, ñi nga xam ne moom bokkuloon coalition Yewwi Askan Wi yéen kaay gi ci loolu xëy fësal Abdoulaye euh, leneen lu fës ci yéen gi de gi di Les Échos yéen kaay gi di Les Échos dafa taxaw tembe ah, ngir fas yéene jaayante ki nga xam ne ni moom moo di Cande euh, Candele Fall moom mi nga xam mooy directeur général di mooy njiital DGE li ko waral nag mooy que dañ ko envoyé ab citation directe moo xam këram la moo xam biram la waaye dafa lànk ne du ko laal moo tax mbir yi jël ko daal di koy bàyyi parce que waaye maître si deykël doolu ak ñu wala maître xule si bàkk ñoom ñaan mbir yi duñ ko bàyyi mu jàll euh, moom mi euh, di euh, Tendella Fall dana taxaw ci këram yoon wax la lan moo tax Euh, mu bañ ne du jox Ousmane Sonko na ko yéen a kaay na ko fësal te de l'ONU naa dugg noonu la ko yéen a kaay di leen si ko xëy fësal yéen a kaay di réew mi dafa xëy delloo charge opération débauchage bi nga xam ne moom la Amadou Ba jógte fan yi Euh, mu soxal euh, mu soxal kon ñi nga xam ñoo nekk ci biir euh, ci biir ci ci ci ci ci Mouhamed Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye Mame opposition bi ah. am na si a na ci sax ay naatango Ousmane Sonko yoo xam ne nii écarté wuñ leen yéen kaay réew mi ci loolu la xëy dellu si waat Abdoulaye. ma ngoog fi mu toll nii am na juróomi délégué régionaux yoo xam ne ñu ngi bokkoon ci Dionne 2024 ñëpp te boo si ne leen euh, moom jëwriñ ci njëkk a di Mouhamed Boun Abdallah Dionne bee ci ab communiqué di ñaawlu taxawaay kii euh, di Amadou a a bu doon noonu la ko yéen a kaay maanaam bataaxal bi nga xam bind na ko démb raatewul benn yoon Amadou Ba mu jàpp ab ragal la ndax ab ragal mooy dem di fekk ji mbër ni moom dugg ci ay nitam naan

c'est fini lu julli tubaab li ko war nag moo di da ko accusé ne ko moom président Macky moo nekk ci ginnaaw la nga xam moom lañ nekk di def jamono ji di fekk dugg ci ay militangam di leen proposé xaalis ngir mën leen dellusiwaat noonu la ko yéenekaay gii di yor yor xëy fësale yéenekaay gi di Sud Quotidien Abdoulaye dafa xëy dellusiwaat ci càndaaral yi nga xam moom opposition bi nekk jamono ji yéen kaay gi nee na fii ba keroog mu sot dafa mel ni ko nguur gi la mu nekk def ay teene xol loolu noonu la ko teene xel noonu la ko yéen kaay gi si côté yi nga xëy fësal yéen kaay génneel le mandat gi di la mandat ne affaire Ousmane Sonko euh, euh, kii di euh, dof delluwaat nañ ko kason mhm. yéen kay gi xëy fësal si xëtamu njëkk ne sauve donc le soldat ni dof CNRA épingle Sen TV Zik ak la tribune lañ ci jub mooy fexe ba campagne bi nga xam lañ nekk di def ak jëmale ko ci kii di Bougane Gueye Dany nañ ko dakkal mm-hmm. yéen kaay gi xëy samp laaj bëgg a xam ndax Bougane Gueye Dany dafay dérange nañu la ko yéen kaay gi xëy fësale euh, fes na ci tribune yéen gi di tribune ne daanaka dafa taxaw tembe ngir fay ngir tëj seen Zik FM ak seen TV ah. mhm. noonu la ko yéen kaay am mise à demande sàkku si ñoom ñu bàyyi propagande bi ñu nekk jëmale ko ci kii di Bougane Gueye waaye ñoom waa seen TV nag yi nga xam ne ni dañuy invité nguur yi ay que Sénégal seen TV moom la ñu xamul fan lañ ko teg noonu la ko yéen gii di la turbine xëy fësalee yéen kaay la boo xam ne nii dafa fas yéene abrité lu ci tolloog fanweer ak ñeenti agence mhm. yoo xam ne ni ay yëpp ay agence audiovisuelle lañu lépp nag ñu tànk maanaam ñu tabax ko ci benn complexe boo xam mu ngi toll ci fukki hectare ak ñett président Macky Sall la mu si jubloon lenn la mooy fexe daal ba ña ne ñu mettre leen ci benn cadre boo xam ni daañu mën a am la ko kaay gi di la soloy xëy fes vingt-quatre heures lu mu ñu jukki la yéen kaay gi di vingt-quatre dafa xëyee dellu si waat jox cadre gi journaliste d'investigation bi ñu naan Peter euh, Peter kon euh, Will euh, Waldman hmm. Waldmax moom dafay bu baax a baax côté wàllu bi waaye bu ñu deful ndànk gis nga Lac de Guiers ni moo Lac de Guiers 2 bi nga xam ne ni mm-hmm. wala sax Lac de Guiers bi nga xam ne moom mooy nandal mm-hmm. euh, ndakaaru <laughs> dana dana dana xaw a jafe mm-hmm. ndax lépp loo xam daal ay projet la Eh, te ñu am ko daal ci foofule ci Lac de Guiers lañ ko fas yéene jëri mhm. te loolu nag bu amee bu ñu deful ndànk ndakaaru am jafe euh, mhm. euh, na Diouf ak Tony mhm. ndax fu mu toll ni daal ci juróom-ñetti at la nga xam ne ni jot nañ ko convoqué ci équipe bi daal ko convoqué benn jour noonu la ko yéene gi xëy fii si Abdoulaye. Euh, fës na ci suñu lamb. rëg-rëg la dalal ah rëg-rëg yëkkati nay kàddoom daal di àddu ci combat nga xam war naa dox ci digganteem ak Bombardier ma ngay nag artu Bombardier xamal ko ne ko ci bu arbitre bi